Salut les amis de eSport TV, merci encore gars de la confiance renouvelée, merci de des likes, merci de des abonnés, merci également de baisser les commentaires, un plaisir renouvelé gars, chaque fois de partager des information yi, bok sénégalais fait fo le maintenant 14 e régions du Sénégal, ak ñu won nga ko ñu leen di jaajeufal, ñu nekk également ci la l'hôpital ci kër tëdd feebar yàlla na suñu borom fëgg seen bopp ñu wër ak jàmm, ñu nekk ci kaso yi nga xam aussi erreur judiciaire gi ñen ñu deful moo leen fa yóbbu suñu borom génn leen fa delluwaat leen seen i njaboot ñu delluwaat na suñu borom xare leen àjjana fi daw si gaay te yéexee ñu en avance ensemble dans la magie de eSport TV l'actualité en continu gars actualité bi ñu fas waxtane ki nga xam donc Iliman Ndiaye bi nga xam ay club yu nek ci Prime League ñom ñoko bëgg jël am tontu bo xam ne Sheffield United tontu nañ ko ngir mu leer loolu lañ si wa fas yéene ko indil leen yi nga xam nak moy jëm ci information bu ñu mel mais d'abord ki nak xam peut-être am na ñoo xàmme nañ ko ñeneen ñi xàmme wuñ ko gars yi tax mooy nekk question bi kii mooy kan gars yi laajte kii mooy kan en tout cas li ma mën a wax moom nag moom li Noël Le Graët wax moom xam na ne donc amul même bu fekkee ne Noël Le Graët nangu na ko moom nag ne diggante ak Zinedine Zidane rivalité bi léegi la ñëw

di Pierre-Emerick Aubameyang wa Barça dal ñi ngi militer pour mu dal di dellu ci ndax actuellement moom mi nga xamné moy donc Aubameyang bamu démé Chelsea ki di Tuchel moo fa yóbboon Tuchel nek fa légui doxatul amul sax temps de jeu bu doy doy moo tax daal ñuy yaakaar ne wana mëna mën dellu Barça li tax mëna nek nak moy que né euh, règlement bi li mu wax moy que né mëno jouer ci ben at ci ñaat ñetti club donc aujourd'hui ci Barça la nekkoon bu ko nexé mëna na delluwaat foofu noonu ki nga xamné moy mooy Joao Félix nag gay tay tey la nekkoon première premier entraînement ak les Blues de Chelsea Joao Félix nak numéro 11 bi la nar a sol il va porter le numéro 11 chez les Blues de Chelsea bu euh, Edouard Ndiol mur Mendy ak également ki nga xam mooy Kalidou Rock Koulibaly mais aussi joueur Félix moom nag ah am na accueil bu bu baax ah bu neex gars yi eh, accueillir nañ ko notamment ki nga xam ne Rich James nga xam ne moom daje nañ sax avant muy signé ndax wax na ko nee na Rich James mosoon nañ daje Rich James moo bindal ne welcome my brother bienvenue sama xarit dalal ak jàmm sama frère loolu Lokodari, la ko daal di ah, bindal ci ba des foofu xam les Blues de Chelsea ak Pulisic mi nga xam ne nag gaañu gaañoom yi bom dal moom daal ba dina toor ay weer latak mo meuna jouer wat le joueur américain donc le numéro 10 des Blues de Chelsea nga xamné mom bokuna ci lot de joueurs blessés yi comme Edouard Ndiol Koumba Midogore Mendy comme ñoom Ngolo euh, Kanté Poro nak actuellement mom dal Poro dafa melni dal daal gars yi ñoom xaw lan la quoi mais ñi dal di Sporting xaw nañ lo gaay yu bari mais fini ni dal Chelsea mo bëgg accélérer pour recruter euh, l'arrière latéral midi euh, Poro actuellement aussi du côté donc de la Liga et notamment de l'Atlético de Madrid Fabio Romano nee bu fekkee ne tay amna ko xamné moy remplacer Diego Simeone bu fi jóge woon tey du kenen ku dul Luis Enrique l'ancien sélectionneur de la xamine won coupe du monde dernière coupe du monde mo ne dafa bëgg ci le club de Madrid mom dal mom le ciblé comme aussi niñu ciblé ki nga xamné Memphis Depay mi nga actuellement momit it kontaanul ci nekkinam du côté des Blaugrana du côté du FC Barcelone moo tax japp na né mom nek na opportunité pour mu daal koy recruter ki nga xamné également moy Hatem Ben Arfa nga xamné mom moom ba mu jógee Lille ba légui résilier contrat amul club mi ngi entraîné ci ruqam né nak mom moom jamono ji day wër club bo xamné ne dina ko jox objectif dina ko jox boo possibilité mu daal jouer mom nak malheureusement talent gâché laa ko tuddee ki nga xamné ne mooy Ben Arfa ki nga xam ne nag Leonardo Balerdi mom nak actuellement ah, du côté de l'Angleterre West Ham mi ngi insister pour daal koy recruter ki di Balerdi donc moo taxee nag jàpp nañ ne fi mu ne nii euh, Marseille bu ñu am proposition bu baax euh, dinañ ko bàyyi mu dem du du kii mais aussi même Leeds intéressé wona ci moom li na gars mais programme bu prime league jëm ci nga xam nag mooy le 13 janvier ci weekend bi donc ngeen gis ko Aston Villa Leeds Real Manchester Manchester United Manchester City Brighton Liverpool Everton Southampton Nottingham Forest Leicester Wolverhampton West Ham Brentford également di jouer mais Iliman Ndiaye Iliman éliminé Ndiaye gaynde bëggul mbuum yàpp lay dundee actuellement boy bi mi ngi toj championship également la prime league lu tax muy toj prime league parce que waa Sheffield United ci boppam ñoom nee nañu yi nga xam ne mooy ay club yu nekk ci prime league yu bëri ñi ngi bëgg recruter Iliman Ndiaye yi def na ñom ñoo xam tamit ñi ngi intéressé wu mais ñom li wax lérna moy que né actuellement. kii di Iliman Gaynde Njaay gaynde mbëggul moom yàpp lay dundé il n'est pas à vendre manam ñom bëgguñu ko jaay fas yéene ko jaay ren jii nii parce que Iliman Njaay mi ngi def saison bu exceptionnelle motax club yu bari ñi nekk championship bëgg ci intéressé wu gis nañ également li mu équipe nationale notamment ci coupe du monde bi aujourd'hui il est en feu machallah dañ koy ñaanal muy wër gëna am wër moom mi nga xam nag gaynde la boo xam ba ñi mi ngi commencé ñaw parce qu'il est en train, Gaï, de montrer des choses exceptionnelles du côté de la Championship, également du Pride, de la Premier League. Moi, actuellement, prétendant et prétendant et bëri nañ ñu ko bëgg bëri nañ mais li Sheffield wax c'est clair Moi, que suis dit, ji fas yéene wu jaay suñu star boy fas yéene wu un jaay suñu bijou fas yéene wuñu jaay suñu gaynde bi nga xam ne moom bëggul moom des doutes, day duut des paadal des di fàdd des def des c'était les informations que je voulais vous donner woy di like woy leen di surtout on avance ensemble jaa Dieu.